ganit Amadou baax ci diwaanu Ziguinchor tax na ñi di responsable politique benn Bokk Yaakaar wane seeni i bopp Doudou Ka Benoît Sambou Victorine Ndeye ñoom ñëpp daal di boole seeni doole ngir may victoire seen i candidat Amadou baax di rafetlu mbooloo yooyu la leader. ñëwaat naa fi tey waaye li ma fi gis tey wane na que vous avez fini de choisir le camp de la paix et je suis très content de nga xam ni gis naa ko fi tey dama bëgg Bokk Yaakaar c'est a réussi mais dañ ko war a yokk foofulee ci Ziguinchor candidat Benno fas yéene na xar kanamu koom-koom ba andi ay coppite ci administration ngir gën a mën a defar ay xëy ngir ndaw ñi Je vous avais promis un programme de développement. Ce programme sera mis en œuvre à partir de cette année. ak bii laa wax waxuma déwén juin ñu commencé liggéey bi dama bëgg xale yi am liggéey. vous pouvez compter sur moi. je vous fais confiance je sais que dimanche prochain vous allez montrer.